salaamaaleykum les patriotes maa leen nuyu di leen ziar seen frère la Cheikh Al. Naby lii nag xew mooy wone man moo may wone am nañ ndam ba pare dem lañ jëlee seen i carte électeur ñu continuer suñu résistance bi parce que résistance bi commencé naa sax dugg si kër sëriñ si fii nga xamante ni moom mooy sookoon di sama dëkku maam El Hadj dem Deme seen ziar bi mu ngi nekkoon tey si dimanche. gouvernement bu Macky Sall maam délégation gouvernement yi dañu faa demoon ànd ak gouverneur. ànd ak représentant général Moussa Fall ànd ak Pape Diankoum député bu Sokone ak Latif Coulibaly bi di maire sookoon ñu buure leen génn leen tànt bi sax biti parce que sëñ bi daf ne fii diine rek lañu fiy wax kenn du fi politique kenn du duñu yàqal suñu diine ji tamit gis nga bu këri diine yëpp meloon noonu taxaw am taxawaay bi imaam bi am imaamu sookoon bii di sama mag di imaam amu dem mais nag doomu Pa Mamadou Amadou dem rek la mën a nekk doomu alaaji Amadou dem bu Sokone ñu déglu sëñ imam bi ngeen topp vidéo bi ba mu jeex na dinaa leen ko indil ba indil leen fi gouverneur bi buudee ñoom ñëpp ñu génn tànt bi def seen yoon déglu leen ma tegal leen imam bismillah dama dem ziyaara dama dem ziyaara umariyeen at mu at bu nekk dama cay dem depuis sama dundu papa xaalis bi yabal ma fa xalif bi yebal ma fa naa fa dem ren ma jëlee fa njàngat bu bari njàngat bi moo di diine yi ñépp ñu nga fa waaye la ma ca gën a jàngat waaye foto ma bii kana kana ci ne Cerno Saydu Nuur ak sëñ Fallu bokkuñ tariqa waaye gis nga nuñ joxantee loxo ñu ne nañu joxantee loxo ci dëgg nañu joxantee loxo ci buggu lislaam bi joxante loxo joxante loxo ci buggu réew mi. bu dëgg jotee wax dëgg. su dëgg jotee nañu wax dëgg. maa ngi ñaan. maa balaa ñuy defagum dara. balaa suñu maam ju baax. suñu maam ku ragal yàlla. ku am njàmbaar. ku am njàmbaar. ku am fegu. ku bugg Sénégal. mu nga bar waaye ba léegi mu ngi régler sunu problème fii ci Sénégal muy alxaaj Abdul Aziz Dabakh nañ ko may fatiha ak salatul fatihi fa mu tëdd yanna yàlla leral bàmmeelam mosuma gis ku mel ni moom ci ragal yàlla ci njàmbaar ci fit ci doylu dara yóbbuwul xelam toujours mu wax ne Sénégal a ko gënal bakkanam bi mbokki dëkkandoom yi mbokki jullitam ko gënal bakkanam bés su ngeen demee ba gisatu leen ko ci Mouhamad Ahmad Ahmadu Mamadou bii wuti leen ku leen di yóbbu ca yàlla ndax wasiila bi nga jël danga ko jël mu yóbbu la ca yàlla jaar na ca beneen yoon amal fulak fayda nga seet keneen ku la mën a yóbbu ca yàlla léegi suma moroom doomi sëriñ yi lay wax doomi sëriñ lañu waaye nekkatuñu sëriñ daara yaa daara yaa ngi fi amuñu daxa. li nanguwuñ koo bañ. nabi li baay koo def. yàlla bi nekkoon ci moom nanguwuñ koo def. kon lan la léegi. nguur a fi ne. nguur nag du dara. nguur nag du dara. voilà damay commentaire indi laatal leen nag fi gouverneur beeg Latif Coulibaly Pape Dieng comme député ak euh, euh, euh, général Moussa Fall élément bu mu envoyé woon ak délégation Macky Sall boobu noonu nga xam ne dañoo ñëwoon Sokone di naxee sëriñ bi ab terrain basket fi ñu tànt nga xam ne ay garabu mango moo fa ne woon ñu ko daan fooyee ñoo ñu benn terrain basket ne bu siyaare jotee ngeen di fa tànte mais foofu politique du fa am diine rek bu mu sell rek voilà léegi nag dafa wax wax bu am solo si maam Abdou Aziz problème bi Sénégal am commentaire ma si def ma indi leen vidéo bi si topp téye leen seen tegal seen teg leen seen baaraam li tax tey ñuy jooy maam abdu ay waxam di ñëw ay waxam di ñëw am na ñoo xam ne ñu ngi fi tey ñu mel ni ñoo xam ne ñu mel ni maam Abdou ñu ngi fi tey par exemple ku mel ni kii di wax nii nga xam ne sama mag la sama doomu nijaay la muy imaam ma bu sookoon tey ñu bëri si sëriñ si dañuy lekk riba dañuy lekk alal bu lewul parce que alal bi Macky sàll ak gouvernement bu bon boobu noonu di jël di yóbbu si sëriñ si alali caga ji am carte di fay xaalis boobu impôt boobu lañuy ñuy dajale xaalisu carte yaa ngi si xaalisu juutimaan yaa ngi si xaalisu lépp lu lewul la ñuy boole yóbbu ko impôt et domaine ba pare ñu leen koy jox te askan bi sax àndu si xaalis boobu nag ku ko lekk képp kuy ñaan képp ku ku ku xar ku ar ne si sa bopp walla diine walla baatin bu ne sa bopp boo lekkee lu lewul yàlla dana ko coppe rocci ko problème boobu lañu am ñu bëri mënuñoo wax beneen bi mu wax si sëriñ su ndaw si ñi nga xam ne ay doomu sëriñ leen comme moom wala sëtu sëriñ wala comme man mii comme ni ma xaftaanoo nii man ña ma doon jàngandoo daara léegi ñëpp ña ma daara koo si gis fu mu toll mu ngi yor nga di xaftaan di ñaan ñii doon sëriñ tariyaax ñii doon ay dugukata xaloo guddi nangu ñoo liggéey damay gis sama morom yoo xam man ak ñoom moo ñoo bokk benn daara ma leen gis si bi ñuy ñaan non Sénégal come on foofu la Sall yóbbu si léegi Serigne Sos noonu munuñ doon maam Abdou parce que maam Abdou yóbbul nañ ko alal mu delloo ko kii di wax ni papaam moom mooy Mamadou Amadou dem bu Sokone moom mooy premier xalifa Alaaji Amadou dem bu Sokone sama nijaay boobu noonu jox nañ ko ba tàyyi nguur jox na ko ba tàyyi xaalis mu delloo ko kuy lekk lu lewul doo wax dëgg doo ñaan yàlla nangu ko problème boobu la réew mi am actuellement nii moo tax ñun ñi ñëpp ñu am taxawaay bi ñu am kii nag taxawaay bi maamam Alaaji Amadou dem amoon Alaaji Amadou dem moo def lu kenn deful ci alxuraan amul ben cérémonie même dialogue politique yi Macky Sall di wote sax mosoo len fa dégg ku ne ki surtout Alaaji Amagat la problème bi la Sénégal am légui nak ma andil, len li nga xamné mom la résistance dañuy gagner de sama gaay élection for force jël len carte électeur yi li ñu defoon dañ ko ci tégaat ndax imam yi sax ñu ngi résister gis ngeen amu mi nu mu résister voilà jëf Alaaji Amar légui nak dama len di andil nak boudé bi après bi lool yépp amé gouverneur yi dañu gouverneur boudé bi la di indi bi bismillah man dama bugg na ko alxaaji ahmad dem sancee woon mu nekk jotaay diiney lislaam dara raxu ko muhammad ahmad dem wuutu ko mu nekk jotaay diine kese dara raxu ko barke démb am nañ fi réunion jigéen ñi di wax soxlaatuñ jigéen di wax ci ziar bi. te noonu la mos a te noonu la mos a demee. kenn de laa munalul dara. mooy ki njiitu réew mi yebal na ñëw. am ku taxaw ne. am na gouverneur bi. bi fu mas a ñëw jaar na ci turam. bum naree jël kàddu Mouhamad Ahmad dem da ko ne doo ko fi waxe ndax yéen li ngeen yor. ndax li ngeen yor. du ngeen nangu du ngeen nangu ñun ñu yàqal leen ko. te ñun la ñu yor te ëllëg dañ koy layoo ci kanam sunu borom du ñu nangu ngeen yàqal ñu ko. woyuñu fi kenn alaaji Amar Dème sax nañ ci wax lu yem nañ wax ci liggéeyam moom waaye moom sax buñ ko woy buñ ko tagg nañ ci wax lu yem rek liggéeyam nag li mu liggéey ci alxuraan ku ci mun a mun nga wax nga wax ko ci keneen ku dul kooku nag waxloo wuñ ci kenn lenn defloo wuñ ci kenn lenn taggloo wuñu kenn lenn nañ wax ci alxuraan nañ wax ci hadis nañ wax ci diine ku ko mun a wax ànd nañ ci ak yow ku munul loolu nag. buude bi xoolal buude bi ki sol lu xonq li moom mooy gouverneur bi gis ngeen leen Latif Coulibaly boo nekk noonu ak Pape Diankom député lii bu ko sëriñ sëpp defoon kër sëriñ si defoon coow li kay tey tey tey duñ fi nekk di jooy maam Abdou Aziz lii mooy problème mu Sénégal barki alxuraan moo tax Ousmane Sonko bu seen maam yi ñëwaatoon moom lay àndal ngeen contre ko dëgg rek lay woote Sénégal dana soppeeku far force sama gars yi résistance dina continuer ñu dëgg ay élection réew bi Macky sa baay moomu ko sa yaay moomu